cey cey cey mbay si mbay si tey mu takkar naa si tey mu mel ni téeméeri yemb ci benn bitir barke yow man xaama lakk bar yëngal nga ko clip bi nag nice na trop mais yaa ngi may fàttali papa Ndiaye coppet papa Ndiaye géwél ak Fallou Dieng fan la nekk nguur sa jee fan la nekk dégg naa léegi léegi mi ngi mi ngi feneen damay laajte kese waaw waaw mbay si clip bi rafet na nice na couleur bi jaay na clip bi couleur bi moom jaay na clip bi noonu la booy def clip léegi clip moom képp ku koy def melal ni bastion rek def sa couleur yu baax rek bastion clip bi mu génne couleur bi moo koy jaay mbay si lii neex na ratambal beeg lëmbal yu ndaw yeeg gis nañ ñoo xam si ay jigéen yoo xam ne ay càq ginnaaw lañ teg maanaam daal ci ay misaal ay fer yu ndaw fer dafa baax ci clip da koy jaay mais macha allah sama xaali mbay damaa foog ni aw kese nga man ndekete boo taasoo mu neex yuu macha allah neex na trop trop trop dama ko seetaan mais non clip bi moom décor bi moo njëkk rafet sax xale yu jigéen yu baax nga ci àndal borom nummata nummata yi gis naa leen ci borom si ci mbi ci yi gis naa leen ci mais décor bi rafet na couleur bi rafet na mais tamit tâche yi moom jëlal fabal yaa ko moom damaa foog ni woon aw waali sekk rek nga man faramaareen bu mag bi ndekkte yu am na lu na sa ginnaaw yàlla na la yàlla lafal cat waa bay nu kum ciw ma xurujukum guppo guppo guppo faadaa gupp laa man gupp lëfër lëfër waa mbay si wuy ma wuy ma boo jël ma PV boo paree rek jël ma PV ndax man gis naa fi ñoo xam si caq ginnaaw lañ teg lëmbal nañ ay lëmbal yu saaf mbay si <laughs> may ma ci tuur rek lëbal yooyu fere ginnaaw yi man ku jun kajang kajang kac saa su jigéen takkee rek maanaam day neexal sama xol mbay yal na la yàlla lafal cat yal na la yàlla lafal cat noonu la rek fi nga ko tee foofu la wasalaam